présente d'abord, je m'appelle Mambala Sen, coordonnateur du projet Zéro Mendicité dans la commune de Piquet Nord. Bon, nous venons aujourd'hui faire euh, l'atelier de restitution et de validation de la cartographie des dates de Piquet Nord, qui se trouve euh, être au nombre de quarante Et le consultant est en train de faire la restitution pour que la communauté puisse avoir les résultats et donner les recommandations. Actuellement, on peut retenir qu'à Pikine Nord, il y a 40 daara euh, normal euh, recensés et les types d'enseignement qui ont été recensés, il y a l'enseignement du franco-arabe, euh, du Coran en tant que tel. et les autres types d'enseignements qui sont recensés au niveau de Pékin Nord. Et, et, aussi, on a recensé un élément très important qui se trouve être euh, le nombre d'enfants handicapés, qui se trouve être euh, au nombre de 15, 15 à 13 enfants sont recensés qui ont un handicap. Et ça, c'est des éléments très importants dans, dans, dans, dans, la restitution. Ça permet aux partenaires euh, euh, quand il va intervenir de d'avoir toutes les données nécessaires. Euh, le bilan de la lande c'est tout juste un atelier de partage euh, de la cartographie parce que il y avait des enquêtes qui ont été recommandées et il y avait dix enquêteuses qui ont été sur le terrain c'était des c'est des ndayu daara et ces dix sont allés sur le terrain recueillir des données et ces données sont en train d'être partagées avec les délégués de quartier, les Ndayu Dara, les maîtres coraniques euh, et les élus locaux qui ont, voté le projet. Et je pense que c'était ça l'objectif de cet atelier-là. Situation satisfaisante, d'autant plus que depuis le début, nous, nous déroulons normalement le projet. Euh, on a procédé à l'installation du comité de pilotage, euh, à la formation des, des, des couches les, les, les, les, plus touchées par le projet, à savoir l'association des maîtres coraniques et le collectif d'Endaïdara. Et nous avançons dans le projet parce que nous sommes presque à mi-parcours dans le déroulement de ce projet-là. La prochaine étape, c'est la mise en place de l'observatoire de veille et d'alerte qui est constitué euh, principalement par les délégués de quartier qui constitue un élément très important dans le dispositif parce que les daara se trouvent au niveau des, des, des quartiers et les délégués, délégués de quartier ont un rôle important à jouer dans ce projet-là. donc c' est c' est la maa ngi tudd Mame Balla Sène euh, nekk troisième adjoint au maire de la commune de Pikine Nord ba pare nekk coordonnateur projet bi projet zéro mendicité bi. waaw cartographie bi mooy outil bi gën a am importance ci projet bi mënuñu woon def projet bi sans ñu mettre en place la cartographie des daara ça nu permet ñu xam suñuy intervention ci yan daara lañ koy def tey jii génnee nañ ne sept daara à Pikine sur les quarante yi nga xam ne recensé nañ ko ñoom ñooy pratiquer la mendicité donc ça nous permet suñuy intervenir ñu xam directement fan la ñuy intervenir bu ñuy joxe appui wala bu partenaire bi di joxe appui si yan daara lañ koy def loolu cartographie bi rek moo ko mënoon génne moo tax ma ni c'était un élément important dans le dispositif mënuñu woon ñàkk def cartographie bi. bilan daje bi mooy dañu yónni woon ay nit ñu dem defal ñu enquête euh, avec euh, consultant bi nga xam ni moom lañ jël mu nekk góor gi Diallo moom moo def cartographie des daara yi nekk au niveau de Diamaguène Sicap Mbao ak yeneen communes yu bëri. moom moo la ñoom moom moo leen di defal ay consultance moom lañ jëloon mu dajeek enquêteurs yi jox leen ay recommandation sur le terrain ba ñu demee sur le terrain tamit defal nañ ko restitution yi tey moom lañ doon partagé ak toute la communauté muy délégué de quartier yi ndeyu daara yi maître coranique gi ak élus yi nga xam ne ñoo tax projet bi ñëw fii. yow mi nekk projet bi gannaaw ba nga ba nga ñu génne li nga xam ne moom moo nekk bilan bi a mooy jàngat bu. dañ ci kontaan parce que déjà ñun jàpp nañ ni projet bi mu ngi dem ñu ngi déroulé euh, def nañ fi ay activités yu bëri te yéen presse bi yéen a ko couvrir muy comité de pilotage bi formation ndeyu daara yeeg maître coranique yi euh, mettre nañ fi en place ay ay ay ay ay ay dispositions yu bëri donc tey dañuy am satisfaction ba ñu mettre en place cartographie des daara bi nga xam ne yàgg nañ ko bëgg au niveau de la commune mosuñ mënuñu ko am pour xam daara bu nekk. lan lañ fa mën a def ak tey tey cartographie aussi dafa génnee leneen muy am na sept daara yoo xam ne juróom-ñaar yoo xam ni ñoom ñooy pratiquer mendicité au niveau de la commune te loolu daf ñuy permettre su partenaire bi ñëwee xam fan lay intervenir ci ban daara lay intervenir ñun aussi au niveau de la commune euh, avec le conseil municipal ñu xam fan la ñuy nan la ñuy intervenir par rapport à cette situation bu ñu jógee fii ñu ngi mettre en place euh, observatoire de veille et de contrôle de la mendicité des enfants loolu aussi délégué de quartier yi am rôle bu am solo bu ñu ci joué parce que daara bu ñëw di sanc ci ci biir commune bi ci biir ci biir quartier ngay sanc donc délégué de quartier dañu am rôle bu am solo bu ñu ci war a joué ok merci